waaw manifestation yi li ko sabat mooy euh, ñun ay sénégalais lañ euh, tamit euh, di def politique defe naa ne politique nekk charte boo xam ne ci réew mi am nañ droit def sunu manifestation defe naa ne yoonu Sénégal mayee na ko ñu war a def comme parti politique lañ war nañ di daje di waxtaan di saafante mais dañoo seetlu waa ji comme li ñu ne buur buur sàll moom lépp loo xam ne nag jëm na ci côté am peut-être dañ ko koy nangul wala dañ ko koy jàppale. bu dee nag ñun surtout lu jëm ci Ousmane Sonko bu waree dajale ñu ne du dajale bu waree wuti xaalis ñu ne du wuti xaalis moom daal lépp loo xam ne dañ ko bëgg a dajale pour lu koy jëmal wala li koy dooleel duñ ko ko nangul. ñu jàpp na nag loolu tamit bu ñu waxantee dëgg depuis bi Macky sàll muy buur sàll nekkee ci réew mi gis nañ jaay doole googu noonu te jaay doole boobu ci man. warul mun a nekk. non buur la président Macky Sall. non sa majesté. Hmm? non buur la nag. non buur la. non ah, buur la continuer mais bon. non buur la xam nga buur. attends pour man sooy def politique. pour man sooy def politique. pour man sooy def politique da sérieux ba pare honnête hmm. honnêteté. Hmm. ak sérieux moom mooy nga nommer les choses par leur nom par exemple c'est un président grand kii moom laa waxal après dinañ ñëw si yow euh, président Macky Sall c'est un président nekkul buur buur monarchie si dëkku monarchie mais fii nii si république lañ nekk donc c'est le président pourquoi ngay wax buur. waaw xam nga lu tax ñu ne buur. non waruloo wax buur loolu. non man buur laay wax. Ah, waaw ñu bàyyi la nga continuer. buur la parce que ci jëfin jàpp ma président parce que bu dee président loolu moom yow yaa ko gisee président man li ma jàpp mooy buur ni ma bëgg ak ni ma ko soobee ak ni ma ko nammee noo lay am loolu lañ jàpp te loolu lañ gis parce que buur majesté mooy def lu ko neex li mu bëgg ak ni mu ko sentiree parce que tey bu ñu jàppee ne nekkul buur kilifa la kilifa réew mi kilifa ñëpp la kenn ku nekk da ci am droit ni mu amee droit def tournée ni mu amee droit def li ko sab wala ay ñoñom def lu leen neex ñu nit war nañ am droit dem fu ñu neex organiser wu parce que looloo tax ñu dugg ci politique. justement organiser